Miller! ¡Lija un chico de televisión! ¡Melina Donovan! ¡Lance! musiba mbaaba kuma day moo am nag ca village bale ñu naan ndaamaatu nekk nag ci diggante ndàngal ma ak xombal gële ah waaw parce que nag benn bus tey ak benn camion ñoo mbëkkante lu tolloo fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi raji inna lillahi wa inna ilayhi raji allahu akbar te ñu sukkandikoo nag ci ajuma juuf ñu ne seede la nee na ñun lu ma ba ca Bambey kon lañ doon dem daal di cay yem waaye lañ yem day doy na waar lool effroyable ma ne la li nga xam ne moom la ñu yem ne la day waaw xel mënu koo nettali dee ba te mënu koo gis ah. ah waaw waaw dama ne la biis ba ca boppam kon ba muy daanu waaw da doon tàkk allahu akbar da doon tàkk laa la wax te jafe-jafe doomu aadama day mooy nag nañ leen doon def ba génnee kon ni ga loolee impossible parce que tàkk bi ci boppam moom moo gaaw allahu akbar mënuñoo def dara bu ñu sukkandikoo na ci capitaine Khoudia Ibrahima waaw bu groupement national des sapeurs pompiers bi lée nee na ñun day suñuy jafe-jafe leen dong la woon de mooy génnee nit ñi ca kaar ba parce que ay cinq jàpp leen ne tamit day am na ñaar fukki doomu aadama yoo xam ne daal am nañu ay gaañu gaañuy miti miti laa la wax te nag am na fukk ak benn yoo xam ne kon mujj nañoo ñàkk seenu bakkan te ñooñee day dañoo lakk allahu akbar allahu akbar ne jafe-jafe bi day waaw bokk na ca nag yi nga xam ne yàgg na waaye tamit lëndëm na amul lumière la indi accident bi de loolu bokk na ci yoor yoor yéene kaa ne lu tolloo juróom fukk ak ñaar ci ay doomu aadama di cinquante deux victimes ñoo ci jëlee ay loru loolu de waaw ñoo ca mujj kon dee te dañoo lakk allahu akbar bés fi la journée comportement doomu aadama yi daal joxo ñetti nañ leen de joxo ñetti nañ leen de réew mi ko ti yéene ma day waaw daal dinay yokk na doomu aadama yi nga xam ne ñoo dee ci kaw tali bi de lu ci tolloo fukk ak juróom benn laa wax ni ci ay doomu aadama lu tolloo juróom fukk yoo xam ne kon dañ cee jëlee ay loru lay su saane non yegg nañ nag yegg nañ nag on a touché le fond ah, dama ne la accident bi nga xam ne moo am ca diwaanu Bambey yi lée waaw ak gaal gee nga xam ne daa suux ak lu tolloo ñaari téeméer ci ay doomu aadama benn bus la ak benn camion boo xam ne day waaw suuf la doon yóbbu jógee na leen di ñëw day ñoo mbëkkanti allahu akbar lu tolloo ñu la wax lu tolloo fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ñaar fukk yoo xam ne kon moom la ngeen ñi am day bay jël gaal waaw lu tolloo ñaari téeméer ci ay doomu aadama yoo xam ne day dañ na am nga ñeent ñoo xam ni kon dee nañu lañ dëgg son ni ki démb waaw jàppal ni kon ngi saat na ñeneen juróom yoo xam ni tam dañoo dee allahu akbar allahu akbar daañaa ngay tudd ci chauffeur yi de waaye député Alassane Ndoye mi de ah ci sur ça ni xamee Alaaji Malick Ndiaye ministre transport déet waay député Alassane ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk transport bi lée ñoo bàyyama maata la la wax waaye it waay Alassane Ndoye ne ah kay dama bëgg ministre Alaaji Malick Ndiaye mi de respecté ñu jubbanti waat nag toogaayam di comportement ci de ñu ngi ñaaw de accident yi de bu dakkul day gën a ñaaw tribune yéene kay soo calculé li ci kaw tali bi lée ak li dee kon ci biir géej gi waaw dama ne la ëpp na ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama yu dee ci benn fan rek laa la wax benn fan kese waaw deux cent seize morts allahu akbar allahu akbar dama ne la gis nga géej gi kay moo mujjee soppeeku nag vagues yi ñoo soppeeku léegi ay armel de waaw waaw xale yi day daw coono li nga xam ne moo am ci mi de moo waral ñu jël géej laa wax ay waay ana mbay mi ay waay ana mbay mi évidence yéene kaay de gis nga wàllu mbay moomee aar suñu moomeel waaw nee na ñu ma a jaañ mi lée est wax ne xibaar bu baax bi info bu baax bi président Diomaye Faye ci lu jëm nag ci wàllum ñaata tonne la ñuy bay ci hectare ci gerte gi ah Bassirou Ba nee na président day dafa ne ñetti tonne ci hectare bu ne te boo bëggee dégg-dégg benn tonne ak genn wàll ci hectare bu ne te loolee sax day ab miracle lay doon de ah waaw waaw ca jamono joo ca gaañaa nga song évidence yéene kaay nañu Abdoulaye Sow ministre waaw ci tere bi nga xam ne tere nañ ko ko ngir mu génn ca bitim réew day yekk na njaajaa njaay nguuru joomaay jilee defante naag ñoom de Abdoulaye Seydou Sow day ci critique yéene kaay nee na man mi man mi may daw Ousmane juum na de man may daw dama ne la Sonko juum na moo fii Sonko se trompe lourdement laa la wax Abdoulaye Wilane député waaw naxarlu na lii ñu def koon Abdoulaye Sow laa la wax avocat yi nga xam ne ñoo bokk ci APR day nee nañu dañuy dem ca yoon waa APR nag nee nañu fi mu nekk ni lée béy daal kenn du ko rendi te du yuux remobilisation rek ngir jàkkaarloo nguurug jomaay gi lée ñii dee ay xale lañ ndànk rek Abdoulaye Seydou Sow day ci bés bi le jour waaw ginnaaw bañ ko bloqué ci aéroport international Blaise Diagne nee na nguur gi dañ maa bëgg a di ngir wàllum élection député yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw nii seeni avocat ñoom waa ak Alioune Tine mi lée naxaru nañu tere bi nga xam ne ne ñu ngi koy tere waa APR yi lée ñuy dem ca bitim réew di tukki démin yéene kaay de waaye yow amul décision de ñu jël Abdoulaye Seydou Sow Sow mi de ak Lat Diop Mamadou Gueye ne leen doo leen waa lii tam lan la la see en tout cas seeni avocat day solaat nañ rob bu ya de ñoom waa affaire waaw nee nañu dañoo fas yéene xeex défendre kon seeni nit ndax tere bi nga xam ne na nguuru jomaay gi i ngeen koy tere ngir ñu tukki dem ca bitim réew yor yor yéene kaay de waaye Amadou Ba mi de waaw mbaadu mbaadu toxal bi nga xam ni kon ñu ko fas yéene toxal nag waa kër Macky Sall yi de ak képp koo xam ni kon dénkoon responsabilité am bii ngir mën a rëcc yéeni gaa yi Serigne Saliou Gueye bi ne en tout na de tombé na de te liñ naan waral ay gaaf Pape Sadio Thiam day ci yor yor yéene kaay waaw nee na mënta ñàkk de yëkkati bii teg ca bee yëkkati bii jubanti bii dama la jub jubanti bii ak jubal mënta ñàkk laa la wax le passage d'une solidarité générationnelle à une génération de conscience Bassirou Diomaye Diakhar Faye Pape Sadio Thiam ne les mutations qui s'imposent yor yor yéene kaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne Cheikh Anne xam nga ay nit a ngi yuuxu day ne ay gendarme ci boppam ñoo nekk yooyee tombé tamit ak Abdoulaye Seydou Sow ak ñoom la Diop ñu ne leen doo leen tukki waaye xanaa da ngaa fàtte jéegi Diop jéegi Diop boo sàgganee appelé nga dal ci kawam de les voyés ne kaa ne nouvelle waaw Amadou Ba day jël na ëllëgëm nag fi mu nekk nii prend son destin en na parti bi nga xam ne dañ ko créé nii lé un parti du peuple lay ne par le peuple et pour le peuple Amadou Ba day nee na damaa bëgg fii mu di xeex kii di dóor kee di commandité des coups bu mu ci mënti ne ba ci coowal Karim Wade li lée du ma ci dara dañ may waxal rek ma ci dara fa mi tollu woon a tax day ma ne bu kenn aji élection nañ def farata gi lée te jàll ci leneen laaste daa jot de Amadou Ba day rëdd na yoonam nag waaw waaw sur sa année pataaral gi nga xam ne kon moom la nekkee woon day daal di noppi ci tuuma yi nga xam ne kon ñu ngi ko ko doon tuumaal ci wàllum guerre Benno Bokk Yaakaar ma fa taxoo ginnaaw de wax na démb de setal na dërëm démb de la ko di yéene kay ne ma ngay murmuré projet ba de eh, waaw parce que Amadou Ba mi de nee na l'heure est venue d'agir waxtu yëngu jot na bés si la journée lancement aux nouvelles responsabilités waaw Amadou Ba mi la mu bëgg daal mooy sol numéro neuf ba en tout cas woo na waa APR ak waa Benno de te nee na dem dana def kon ab tournée nationale ngir déglu ñi nga xam ne kon seen xel daal daa teey la ñuy dute ak ñuy hésité ki récolte premier ministre daal dinay woo suñu premier ministre tey bi de Ousmane Sonko ci déclaration de politique générale am bi Amadou Ba daal xamal na Ousmane Sonko ne ko am réew kenn du ko yor ci wàllum en mbirum mbañeel maanaam defante o waaw ci biir yéene kaa de déclaration de politique générale boobu bee dara leeragul ca de mbir mi leeragul de vingt quatre heures eh, en tout cas le onze le septembre deux mille vingt quatre waaw dans l'ordre ou dans le désordre en tout cas lu ca mënti xew ñii di def kon wàllum politique day war na ñoo jubal rang yi ba mu def ko bis bu rëy Amadou Ba ci critique yéene kaa ne déggoo ma de waxtu wa ca boppam moo jot waxtu yi jot na dee ngir six cent millions yi ñu wax ñu fu ñu dugg laast ministre a Diémé waaw ci lu jëm nag ci wàllum pôle emploi bi lée nee lu tolloog juróom benn téeméer ci ay millions ñoo ni may mar di tali vingt quatre heures yéene kaa ne dëgg la pôle emploi boobee waaw ci ñetti weeru deux mille vingt quatre fan la six cent un millions yi jaar ilaha illallah Yankhoba Diémé ne lu tolloog ñaari milliards ak genn wàll mooy méngoo ak ñetti weer yi njëkk te loolee dekese nañ ko mu waay Yankhoba Diémé ne malheureusement dañoo mbetteel gu rëy ci weeru mars bi ah, waaw parce que nag lu tolloog juróom benni téeméer ak benn six cent un millions la ñu génnee ci kees yi ba nuppi ba fii ñuy wax ak yow ni lée fan lañ ko dugal kan lañ ko fay fan la dugu xamuñ ci dara jàppale ne inspection générale d'État yëg na ko de ci passation de service ba mu waay waaw lii moom doy na waar tribune yéene kaay ne commissaire Keita day déglu nañ ko de benn tànka ma nga ca kaso ba de benn tànka ma a rëbës de mardi taali laase waaye Pape Malick Ndour Antoine Diome général Fall waaw Pape Abdoulaye Touré day porté na leen plainte de ndax torture allahu akbar allahu akbar yoor yoor yéene kaay ne commission nationale des droits de l'homme voté nañ ko démb à l'unanimité ci assemblée nationale dëgg la ca kanamu ministre de la justice Ousmane Diagne président day léegi nag appel a candidature lay def kan moo war a jiite kon kër googee dem naa ca football ba laas gaynde Sénégal yi day waaw gañe nañu de ca Burundi sans convaincre mbir mi daal amul jeu daal équipe bi daal xorob si des na football bi des na dugal bi des na football dugal waaye football tamit xale <laughs> waaye équipe bi de ak lu ñu wut ay xale xale xale xale xale xale xale xale xale bu leen fàtte ne suul gaal su ko teree xeeñ ndaw yi taxulaa rek ndax Sonko koy jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree mën a la alaaji E DDN Info groupe WhatsApp la 76 593 89 04 abonnement 16 ans chaque fois foofu la mbokk